waaw asalaamaaleykum Sénégal ah tey nag ñu koy yeewoo nakar ci samedi bi wax dëgg yàlla suñu yaay Ndeye Fatou Diouf di yaayu Faramare ni moo fi làkkoo tey wax dëgg yàlla ñuy mastawu ñëpp di bokk ñëpp nakkar bi boobu ba tey sénégalais yi ku ci nekk yaa ngi woote nit ñi ñi ngi jaaxle waaye dafa am rek information bu fi wàcc mooy lan jotaguñ ci koor bi donc njaboot gi ñi ngi dem. pour lijjanti ji affaire koor bi parce que ci weekend bi la ko def donc te ku ne xam na ni këyit tubaab yi bala ñu lay jox koor noonu foog ñu lijjanti këyit ba pare nga mën a jot ci koor bi donc information bi mooy pour bañ a sonal nit ñi ñu bëgg rek ku nekk fa nga toog nga toog fa nga ñaanal ko bis bu ñu waree jot ci koor bi dina leen wax ni jot nañ ci koor bi heure sàngam dina egsi heure sàngam lañ koy denc jour sàngam mooy sarax bi pour bañ a sonal nit ñi ñuy déplacé wu di dem. te njaboot gi nekkuñu fi Wally Seck ma nga Paris donc neexul ay nit di jaamante di ñëw te duñ fi fekk niñ fi war a fekk donc ñu ngi tuub te jéggalu di leen wax ni information bu wàccaat incha allah buñ jotee ci koor bi di leen ko waxaat ñëpp dégg ko jërë ngeen jëf Sénégal. waaw asalaamaaleykum Sénégal ah tey nag ñu koy yeewoo nakar ci samdi bi wax dëgg yàlla suñu yaay Ndeye Fatou Diouf di yaayu Faramareen ni moo fi làkkoo tey wax dëgg yàlla. ñuy mastawu ñëpp di bokk ñëpp naqar bi boobu ba tey sénégalais yi ku ci nekk yaa ngi wootee nit ñi ñi ngi jaaxle waaye dafa am rek information bu fi wàcc mooy lan jotaguñ ci koor bi donc njaboot gi ñu ngi dem pour lijjanti ji affaire koor bi parce que ci weekend bi la ko def donc te ku ne xam na ni kayit tubaab yi bala ñu lay jox koor noonu foog ñu lijjanti kayit yi ba pare nga mën a jot ci koor bi donc information bi mooy pour bañ a solal nit ñi ñu bëgg rek ku nekk fa nga toog nga toog fa nga ñaanal ko bis bu ñu waree jot ci koor bi dina leen wax ni jot nañ ci koor bi heure sàngam dina egsi heure sàngam lañ koy denc jour sàngam mooy sarax bi pour bañ a sonal nit ñi ñuy déplacé wu di dem. te njaboot gi nekkuñu fi Wally Seck ma nga Paris donc neexul ay nit di jaamante di ñëw te duñ fi fekk niñ fi war a fekk donc ñu ngi tuub te jéggalu di leen wax ni information bu wàccaat incha allah buñ jotee ci koor bi di leen ko waxaat ñëpp dégg ko jërë ngeen jëf Sénégal tey bokk ko ñun sénégalais yëpp waaye ba ba léegi euh, ni ñu koy waxee rek suñu borom moo ko wax ku lu nag kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu mos dund di nga mos dee ni ko noonu nag ñu taxaw ak euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye doon nit koo xamante ne askan bi xam nañ ko waaye Sénégal lekk ñor ko saa su ne muy jug di bokk ak ñoom lépp loo xamante ne rek seen mbégte la wala seen bànneex tey nag ñu fekk ko ci bésu tiis bii nga xamante ne suñu yaay maman Kine Diouf Diaga moo fi jóge monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la jaal di la masaw bu baax ci tiis bi ñu bokk waaw maa ngi leen di fay euh, di leen jaale yéen tamit. parce que mhm. ni nga ko waxee ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. Euh, muy lu metti metti metti metti. Mhm. Euh, coro bi ma koy tàggee daf ni ma ah papa nga baal ma de li ma lay wax metti na lool xam naa fi mu egg ci yow mais mënuma la ko bañ a wax. parce que ñoom xam xamoon nañu relation yi nga xam moom laa am ak la famille de Thione Seck. particulièrement coon ak soxnaam si nga moo fi bàyyi ko tey mhm. d'ailleurs coon daaw ma wooyu mukk sëriñ Mbàkke dafa man woo rek xaritu jaaga mhm. su ma nee xaritu jaaga man ko bàyyi waali ñu ree mhm. euh, lu metti lu metti parce que coon bu fi jógee yàggul di ko jooy noppeeguñu euh, doomam jiitu doomam jooju aussi mu nekkoon ko nga xam ni ñi ko xam yëpp xam nañ ne doom la woon ci man tey yàlla def li ko neex euh, jaaga dem fekki leen mm-hmm. euh, muy lu tiis foo ko natt weesu na ko parce que euh, bu dul woon lu ñu di ay jullit gëm yàlla dañuy wax ne dañ leen a singali mm-hmm. mais yàlla boo ko neexoon ñu ñëpp ñu àndandoo mu yóbbu ñu ci benn jour mm-hmm. mi ngi may fàttali rek bi fi suñu wayjur Serigne Mansour si borom daara ji jóge fekk avant loolu soxnaam su tedd soxna maam xaar jóge fi mm-hmm. ñu teg ci ab diir seen doom ju jigéen jóge fi mm-hmm. yàlla mooy defe noonu mm-hmm. c'est même difficile pour ma trouver les mots pour wax dëgg-dëgg li nga xam ne moom laay sentir mais dama wax sànq ci benn poste mu jàgga moom mission accomplie te loolu ku ko wax kenn du la weddi ndax borom këram moo ko gërëm ba woy ko mhm. te du benn woy xëy na bi mujj nii daf ci gën a siiw mhm. mais jëkkul ci boobu mhm. ñaareel ba ñun suñu culture suñu cosaan ak suñu aada dañuy wax liggéeyu ndey añub doom kon mën nañu jàpp ni li mu liggéey ci kër coon feeñ na ci doom yi nga xam lu ñoom la jur parce que macha allah yàlla mi ngi leen di suturaal ñeewuñu kenn yàlla na sutura yàgg Euh, comme ni nga ko waxee rek euh, sa xarit la woon moom ki nga xamante ni moo di Papa Thione tey yombul euh, cër li ko yàlla may sa boroom kër siiw sa doom siiw waaye yombul ñuy dégg Mama Diaga ci yenn yi ban façon nit la woon. non mooy li ma mooy li ma doon commencé wax léegi dina mission accomplie. Mhm. parce que sëy ba sa borom kër sant la. Mhm. nga yar say doom ba ñëpp xam ni yaru nañu. Mhm. te kenn mësula fekk fenn foo nga xam ne dañu naan kii lu mu fi def. loolu euh, du sax nguur a peut-être mhm. mais lu yàlla jagleel doomu aadama la mhm. ak jamono ji ni mu mel mhm. ak dem lay fekkal leen lu mel ni mu mel mais jàgg ko ko waxal dara rek ah sa waxu bopp la mais dooni fekk naa ko ci nangam dooni gis naa ko ci nangam demul dikkul est li may wax nii mën naa ko wax teg ci kaam parce que jëkkëram moo ko wax ay doomam seddal ko seen yaay lenn rek mooy yitteem muy dem ci armeer yi ba toppatoo ñu feebar loolu rek moo nekkoon yitteem ci li ñu koy dégg. mais loolu yëpp boo ko boolee xëy na moo ko jox li nga xam ne tey euh, moom la am. parce que kenn ku nekk la ngay dund yaa ko xam mais sutura yàlla dafa yaatu. Mm. te bu fekkee ni yàlla jox na lu sutura jox la sakk nga ni ma ko waxee léegi rek nga uuf sa jëkkër ba jébbal ko borom bi. Mm-hmm. Euh, yar sa ay sa njaboot. ba ba kenn amul lu mu leen waxal euh, je pense que foofu la foofu la foofu la nit mun a yem te macha allah fi nit mun a yem egg na fa. Mhm. Mhm. li ci des rek mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana. Euh, uuf njaboot gi mu fi bàyyi. Mhm. xëy na nit bu demee ñu jaaxle ci njaboot mais yàlla moo yor ñëpp. nga nekk fi yàlla moo leen yor nga bañ fi nekk yàlla moo leen yor. donc yàlla na ko yàlla xare àjjana. coon euh, fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana moom it euh, njaboot gi fi des it yàlla euh, tegal teg ci boppam loxoom loolu yëpp rek day dellu si ci responsabilité boo nga xam ne nag doomam di Wally Seck gën na ko am parce que boo nekkee ak ndey ak baay ak say rak mhm. yàlla jël sa baay jël sa ndey tey mhm. sa responsabilité dafay gën a yokk donc yàlla na ko yàlla kàttanal dooleel ko mhm. ba responsabilité boobu mu gën ko mën a assumer Euh, li ci des rek mooy képp ku doon xaritu coon wala ngay mbokkam euh, rek yàlla na nga am conscience boobu ba gën a jege xale yi gën leen a jàppale gën leen a wéttali parce qu'ils en ont besoin yan kàddu ngay dégg sénégalais ci saa su ne rek waxante lu ñaaw xaawente sutura beneen yoon ñu dellu si ci ci loolu pour le moment je pense que mën naa yem rek ci mën nga yemale ñu ngi lay masaw bu baax monsieur le ministre merci mm-hmm.